asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi dellu tey ak yéen ci concours yaatal mbindum alquranul karim bi nga xam ne c 3 moo koy organise at mu nekk e, ci mboolem Sénégal yàlla dogal na nag tey ñi ngi ci final bi te mooy maxtuutaan mooy mbind yi nga xam ne kandidaa yi bindoon nañ ko. ci lañ nekk doon ko xool muy ñaar fukki candidat yoo xam ne ñooy finaliste yi eh, tey nag ñoo ngi fii ci Daarul Mannaan ci kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu eh, comité d'organisation bi ak comité scientifique bi ak jury bi yëpp ñi ngi teew ak mbokk yi ñu bokkal liggéey bi. Eh, léegi nag li ñu dese rek mooy correction bi xool xam ki jiitu ak ki ci topp ak ki ci toppaat. ak fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom jiituwuñ euh, su ko defee nag ñuy waajal daje bi nga xam ne moom la ñu war a amal euh, ca Grand Théâtre incha allah ci weeru koor gi war faa defee cérémonie bi nga xam ne fala la mbooloo mépp ak Sénégal gépp àddina bépp fa la ñuy xamee ñi nga xam ne ñoo jiitu ak ña ca topp ak seeni neexal incha allah ñu jot ko kon nag euh, ñi ngi leen di jox rendez-vous booba ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu leen nuyu di leen siyaare di sant yàlla ci liggéey bi ñu tàmbali woon ba ñuy déposé ñu ànd ko ak yéen ànd ko candidat yi ba tey jii di bis bi ñu mujjee pour tànn ñi ñett ñi war a jiitu. kon ñoo ngi doole sant yàlla bu baax a baax a baax ci ndimbal la ñu dimbalee bañ man koo defee ni ñu ko bëggee woon euh, ba amee ko ni ñoo ngi sant yàlla di sant ñëpp ñu seqoon liggéey bi mooy euh, ñi jiite woon euh, laj na yi ak ñu yor organisation ak communication ñu ngi sant ñëpp ndax bi liggéey bi taxawee ba léegi rek ñu ngi ko ànd di ko doxal ba yàlla defal nu ñeex ci bis bi tey ngi bis bi nga xam si moom buñ ci jógee rek ñu ngi jëm ci cérémonie kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu leen jot ba tey sant euh, sëriñ euh, gum yóbbante nañ leen ko nañ leen ko sant ci yaakaar ji mu amoon ci yéen ni mu ko yaakaari woon ngeen defe ko nu kawe njortam depuis biñ tàmbalee liggéey bi at mu ne laay wax waaye atum ren da cee rawati ndax daa fekk ñu jóge ci e, jamono e, réew mi ni meloon muy jàngoro ji fi nekkoon waaye tur bi ñu dellusiwaatee rek mel na ne mësuñoo taxaw ba liggéey bi e, so sottee ni ñu ko yaakaare woon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci turu sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa بنعمة ربك بمجنون